3S4. waaye bu la nekk fii en ce moment ñu ngi lay ñaanal jàmm mbokk yi tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy arène nationale bu leen sa fàtte mbokk yi tey ñu ngi janvier 2024 atum 24 la kan yi ndeysaan ndeysaan waa Yaram Aar ñoo ñu fi woo avant combat spécial ba ngi noonu diggante Boy Plateau parce que jigéen ndeysaan waaye bu jàkkaarloo xale bi nga xamante ni mooy sekkandaa daan xale yi ñëwati nañu xale yi ñu wax ak ñoom ak possible na gën seen diggante plateau face à Seck Ndiana ñu xool kay du plateau des ko nga tey wàllu fi la mujjee ñu gën a pour si jot waaye Seck Ndiana ñu xool kay fi la mujjee ci gën a ñëw mooy Franc plateau dama ci wax Seck dem na plateau door attention Seck dana ko tànn ko Seck dana ko tànn ko Seck dana ko tànn ko CPF lamb mi nii tànn la plateau tànn ko sekk tànn la sekk tànn la mooy diggante Guiro ak doomu Garga Guiro doomu Garga adversaire am ndax dina mu daw même pas ñu mais ce se passe à la jeunesse de Ouakam exemple waaye kàddu bu mot moment bi ñuy wax ak yow kàddu bu mot ñu ñaanal suñu lion yi daal di indiwaat ndam li mu nekk deuxième deuxième secret et fii si Sénégal. fekk nii noonu waaye suba incha allah rabbi Kalidou fii tamit Kandji production wala nga ne FPR event ñoom aussi ñooñu fi woo mbokk yi combat amateur la ñu toog ñu yàqante ñu caaf loolu léegi moom fils de Balla